duruusun min shuyuuxil wahabiyati aw duruusun min mashaayixil wahabiya dars yi nag dafa am solo surtout sax ci jamono ji nga xam ne day mel ni ñoom bokk na ci seenu campagne fekk ay wax yoo xa ne dañu ne daa wotee sharia mbaa ñoom mënuñu koo dégg ñu di ko dugal ci ay groupe di wane ne tasawuf dafa juyoog sharia loolu na xeetu campagne la woo xam ne euh, yàgg nañ ci léeg-léeg sax ñu for benn vidéo boo xam ne kooku sax daanaka ñu bari ca tarixa bu muy tuddoo mën naa am xamuñu ko buñ ko xamee itam rëpp seeni wax représenté wu leen euh, la muy wax itam ak la borom tarixa boo wax jotewul dara waaye ngir campagne wane ne tasawuf baaxul moom lañuy jël teg ko ci groupe ña ñuy tuddee borom xam-xam yi nekk di wax ñi nga xam ne ñoom xàmmeewuñ buñ boo jóg buñ boo xam nag ñu day mel ñooy ñoo yëpp sax coow ñoom euh, loolu nag xeeti wax yooyu rek da cee bari yooyu ña ñuy sëriñ yoo xam ne ñoom ñoo nangu nañ ne ay sëriñ lañ euh, ñooña dañ caa xam naa sax waxaab yi moom niqaas ak moom yoon wu ci gën a gaaw mooy ne ko sëriñ nee na nangam eh, xëy na coow kër kër ju métti ji ñuy def ak pexe yu suuf def looloo ko waral ndax eh, dañ lay wax sub sëriñ da toog ay at di campagne naa sëriñ sàngam def na ni sëriñ sàngam def na ni ñuy indi la sub sëriñ def na ko doo ko mën weddi doo xam nooy def nga ñiñ loolu léeg-léeg mooy leen xëy na mooy leen dugal ci pexe yu suufee loolu nag euh, yooyu nga xam ne nag moom la ñuy campagne euh, dañ caa def loolu ñuy wax alkaylu bil mikyaale yi seeni sëriñ dañ koy dañ koy wax ñu gis ay sëriñi tasawuf yu ñu defee ne wax nañ loola ñu tànn sëriñi tasawuf yooyu nag bàyyi seeni sëriñ fële ñun nag bu soobee yàlla suñ silsile bi bu yàlla defee jàmm li ca bëree bëri foofee ko waxee làq ci seen téere buñ ko rombee ne ceel duñ ko génne ñi ciy bind sax ay téere duñ ko nangoo bindaale ñun dinañ topp yooyu di luqat ci benn par benn euh, wala fañ ko défendre benn par benn bu soobee yàlla bu yàlla dimbalee te euh, may nu wér mën naa doon silsila bu yaatu euh, di jéggulu yeexa dil siwaat gi xam naa tey nag daa mel dañu xaw a guddee bëgg nañoo indi dars bu njëkk bi dars bu njëkk bi mi ngi aju ci sëriñu wahabiye yi li ñu wax ci buntu lii ñu doon wax ci ginnaaw bëgg nañoo ñëw ci wax ibnu taymiya bëgg ñëw ci wax ibnu qayyim te ñooy ñaari sëriñ yi nga xam ne moom ñooy yi na a mag sëriñu wahabiye yi danañ indi seeni wax ci fii nu toll biñ ci joxe waaye balaa boobu ñu dem ci al aadabu sharciya libni muflix alxanbali foofa day wax na fa ne ñëw na fa ne ci boo xam ne ibnu muflix mi ngi ko tuddee faslu faslu faslu attaanu ala al ulama faslu boo xam ne ŋàññi borom xam yi ak sikkal leen la tudde boobu fasl Euh, mu tàmbali wax ji nag dafa xaw a gudd xam naa dañ koy tënk mu ne Ibnu Aqil wax na ci funuun ne xooli borom xam yi am na yaqda xeetu yaqda gu ci ñëw goo xam ne buñ ko waxee wax àtte ba xool yi danañ ko foñ xool yi danañ foñ seen wax jooje donte sax euh, ña leen di foñ dana ci am ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ waxuma ne ñi nga xam ne xamuñu misaal na ko ci ay mbir yoo xam ne itam boole na ci waxee abubakar ni sadiq radiallahu anhu fi mu doon waxee ne bu fekkonte ni kiiraay gi day muri nañ ko du tax ma dooli ko wóolu misaal na fa tey na fa tey na ne nit kat mën naa wax ne raqib ak atid man ruusuma leen ragaluma leen loola nag boo dee xool zaahir bu day mel ni ak kufur fa ñu jàngut ndax day mel ni moom ñi nga xam ne ñoom la def ay xafada ci kaw mbindeefam yi day mel ne leen Euh, doyadal waaye nag mën na caa bañ a jublu loolu ndax gis gi xam gi mu xam ne euh, sun borom subhanahu wa taala mi koy gis loolu moo not ba nga xam ne malaaka mi koy bindal bàkkaar ak yooyu daanaka day rot ci bëtam duutu ko gis kon ay wax mën naa nuru ak kéefar fekk duunu ko ci tënk ibnu mawleex dem ba ne faxdar min al iqdaami ala taani ala al ulamai maa adami buluuxika ila maqamatihim moytul di ŋàññi borom xam yi te fekk yow fa ñu àgg maqaama yo ñu àgg àggoo ci xatta annahum fi xaalin ka shaxsin wa fi xaalin ka wa fi shaxsin axar léeg-léeg nga nga fekk leen ci benn xaal mu mel ni kenn nit lañ nga fekkaat leen ci beneen xaal mu mel ni keneen nit lañ lool nag suñ suñ si Sénégal rek am na ci ñenn ñooñ léeg-léeg nga dégg seen wax yoo xam ne nañuy waxee man nga leen diggaat ñuy waxee naneen ndax xaal yi ñu doon benn euh, loolu moom ku leen yàgg am na ci ñooñ ku leen yàgg topp da ko xam nee na moo tax ñenn ci mutasaw mutasawifa yi di wax ne sëriñ si seeni wax dañ leen di bàyyee dañ ko dañ leen dañ koy bàyyee ak ñoom moo tax mu ne wa lihaada qaalat al mutasawifatu lissigaari yusallamu lil mashaayixi al kibaari xaaluhum kon loolu lu mat a bàyyi xel la kalaamul awliyaa ilastu afhamu li annani ana wahum humu loolu sun sëriñ waxoon xam naa loolu itam soriwut ak li nga xam ne moom la ibnu muflix di wax fii itam alallaamatu ibnu qayim di kenn di di kenn ci sëriñ wahaabi yi e, waxoon na leen ne gaaw gaawtu di weddi loo ko de xamoo ko bul gaawtu di weddi loo xam ne péegoo waxuma la nag ngay ñam xaal booba nag moom seetal ki nga xam ne moo ko xam nga bàyyi koog moom xale gi jox ko ko ko yet bàyyil waruwaay gi giléeb gi bàyyi ko ka koy màng ka nga xam ne moo koy womat nee na ibnu qayim nee na laa taajal bi idkaari maaram tuhab bi ilmihi bul wax rek par exemple nangam nangam nit ñi de ko ko ko sari xam-xam boo xam ne mënu koo xam dañuy wax ne xam moo xam nangam nangam nit li eh, wax lu kenn xamul kenn koo def bu nit waxee loo xamul dooyam ci maandu ci waaye léeg-léeg koy takk si léeg nga tab jeex ko te li mu wax yow xamoo ci dara da ngaa defee ne rek lee rek lay wax te ñoom waxuñu la ne lu su riba tegtale loolu lañ ci jublu ñoom waxuñu la loolu nit koo xam ne daa am istilaax yi boppam am ñuy waxee noonu noo ne ñu leen ñuy waxee nga génn ci booba indi yow ni ngay waxee yow di la àttee ci ni ngay waxee loolu fa la tooñ mën a yem kon Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim nee na euh, laa taajal bi inkaari maa lam tuxit bi ilmihi fadlan an zawqi xaalihi waxuma sax nga ci am zawq waaye xam ko da mu وأعطي القوس باريها وخلل مطايا وحاديها loolu bu seegeen gone goo xam ne dañ koo jàngal ay tawxidu rububiyaat tawxidul uluhiyaat tawxidul asmaai wa sifaat ak ay xidamu nawayeeg ay ay ay xeeti xarwalatullaahi yooyu nga xam ne daanaka nañ la koy jàngale <coughs> ay tàmmaate ca ne mosal la tuuti ci jéem sax faqih na mu yóbbu ci ñoom moom eh, loolu tax koo ñi koy xam day am fu ñu di jaarale am fu ñuy jaar doo ràgg foofu du du fu ko ne di tëb di àgg ko ne koo xam ne arab yi dong bu ko déggee boo làkkee arab nga xam ne kii jàngul arab bu tekkee si nga rus mooy itam di dugg ci waxi kilifa yi di di ko analyser léeg-léeg mu takk fër léeg-léeg mu tab diya te pourtant de seen sëriñ Ibnu Qayyim joxe woon na ci benn dars noonu na wa ma yaarifu qadra hada man ixtaara alqifaara waqta xamal am na mbir yoo xam ne Ibnu Qayyim noonu ki nga xam ne moo jaar ci tuuma yi àll bëtt géej yi moo ko mën a xam wa arada lahu ma yaaradu li saliki alfaqri wa rakibi albaxri wa man lam yusaafir wa lam yaxruj an watani tabacihi koo xam ne génnoo ci sa jikko sa dëkkub jikko wa ma arifa alayhi asxaabahu wa ahla zamanihi koo xam ne yow la nga xamoon da nga fekkoon say rek ak sa waa jamono lañu nekk ca nga ànd ak ñoom nekk ca foofu bi maazilin an hada yow lii <coughs> da ngaa nekk lii nekk fa lii nekk fa neen waaye yow lii xamul ci dara fa in arifa qadrahu wa kafa nnaasa charrahu fa hada yurja lahu salaamu fekkeen xam na boppam fexe ba aw ayam mu musal ci nit ñi kooku moom mën nañu am yaakaar ne mën naa mucc wa yanara sawrahu wa ankara ma lam yaarif wa kadaba bi ma lam yuhit bihi ilman summa tajawasa ila takfiri man xaalafahu wa lam yuqallid shuyuxahu wa yarda bima radiya fa huwa bima radiya huwa bihi li nafsihi fa dalika zalimu ljahil allahu akbar nee na bu fekkee nag moom ah, fa mu waroon a yem da koo jéggi weddi loo xam ne xamu ko yëmut foofa mu boole ci nag di takfir naa loolu ak kéefar la wala diw yéefar la kaw wuteeg moom di ko takfir te it lay lay sëriñam wax itam wax ko na kooku mooy ki nga xam ne moo tooñ mooy ki nga xam ne moo xamul mu ne fa dalika zalimu aljahilu alladi ma mooy ki nga xam ne ku tooñ la ku réer la koo xam ne boppam dong la lor yooyu wax nag mën naa ñëw kilifa mën na ko wax ci jamono sukkuru waaye mën na ko wax ci jamono yi saxwu tamit lu mu si mën a doon nag du gone gu toll ni Fadel Ndiaye moo koy lijjanti Euh, bu dee li nga xam ne moom la ñuy wax ci jamonoy sukkuru loolu moom leer na ndax foofu moom la muy wax daa doon teg sagoom ci àll la ko waxee waaye du ci sagoom kooku moom ku ne xam na ne loola baakaar ba ko ca fekk moo tax sëriñ Ibnu Taymiya joxe na foofu bind nee na wa qad yaqaau baadu man galaba alayhi alxaalu fi nawcin min alxululi aw alitixaadi fa in alitixaadi fi xaqun wa baatilun lakin lamma warada alayhi ma gayaba aqlahu ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك بسبب منه بذنب منه كان معذورا غير معاقب nee na ñeent ñi nga xam ne àll leen a not léeg-léeg ñu dugg ci xulul wala ittihaad xeetu xulul wala xeetu ittihaad ndax loolu moom am na lu ci nekk dëgg am na lu ci nekk caaxaan waaye ba nga xamee ne nag mbir da koo song moo xam ne daa yóbbu am xelam ba nga xam ne fi mu ne def na farao maanaam ba nga xam ne ne yàlla mi bëgg doo nga lay gis kooka te fekk moom xaal bi mu toll du daa daa def bàkkaar moo tax mu agsi fi ah daa ñëw rek noonu ci kawam waaye du bàkkaar bu mu def moo tax sukkur gi jëwal ko kooka kenn du ko mbugal ca la muy wax ndax loolu kat du seegin da ko fàggu moo tax mu ne nag mu continuer ba mu yàgg mu ne faqad yaqulu fi hada alxaali ana alxaqu aw subhaani aw ma fi jubbati illa allahu wa nahu dalika nee na jamono jooju nag mën naa wax ne man ñi ma yàlla wala mu wax loo xam ne yàllaa ko jagoo subhaani wala sama biir mbubb mii kat yàlla doo nga ci ne maa ne kon aw yaram moom yàlla la bu ko defee gone waxe bii nag buñ gisee kilifa gu toll fii bu ko waxan ñu daal ne xoole ci kufru bi muy wax pourtant mën na koo bañ doon ndax charte kufru jamono yi mu koy wax boobu dëppawut moom ndax day aaje nit ki ànd akum xelam euh, kon mën naa nekk nit ki mën naa wax loolu ci xaaltu sukkur lool mooy benn xaal bi beneen bi itam nit ki mën na ne kàndang ànd akum xelam wax wax gu mel noonu itam te téewul rek bu dee ngóor su mel ni alfaba la mu war a wax rek mooy kalaamul awliyaa yi lastu af xamu li ana ni ana waxum xumu boole loxo yi ci ñaari boole ñaari loxo ci ginnaaw sukk ci kanam waa tasawuf ñu jàngal ko tàggat ko ba mën a xam yooyu wax wala moom ba mën a aw si yoon wax dana mën a àgg fu mu mën a xame loolu ndax loolu kat du seegeen gone day jàng ay téeméer yu ndaw ndaw yi rek nga xam ne defe na nga caa mën a dugg moo tax boo demee ci madaarij saalikiin sëriñam Ibnu Qayyim joxe na dars dars bu ama bu ama am solo boo demee ci madaarij jox na ko foofu foofu dars nee xamal ne day làmmiñu nit ñi laa mu ñu borom ñooñu am na ay àbb yu ci ne ak matali biir moo xam ne jubluwuñ ci lépp lenn la lañ ci jublu ak booyal baat boo xam ne jubluwuñ ci jëmmi baat bi waaye la baat bay junj ci jublu waaye du dëgg maanaam baat bi lañ lañ bëgg lañ lañ jublu ci lañuy wax mel noonu am na ci làmmiñu ñooñu am na ca yu mel noonu am na ca amee na ca noo xam ne ca ci la muy wirum ñoom kon ñooñu seeni wax gis su ko yemale waxe ñeneen ñi ndax nañuy waxe da caa bari loo xam ne li ngay njëkk dégg ak ñuy wax doon benn dañ la nga seen baat yooyee ak lañ ci jublu du benn moo tax boo leen yemale ni ñeneen ñiy waxee rek da nga daanu fi saas mbaa nga wax loolu mbaa nga ne lii lañ wax fekk loolu ñoom waxuñu loolu kenn ci kuréeli diine yi kuréelu suufi yi ni ñuy waxe amut benn kuréel ci kuréeli diine yi buy waxee noonu moo tax ñoom dañoo waxoon ne nun gaa yi junj lañ waaye duñu aw waxil junj ñoo ko moom waaye ibaara ku dul ñun moo ko moom léeg-léeg itam mën nañoo wax phrase boo xam ne ku weddi yàlla moo koy wax waaye ñoom la weddiwuñ ñoom maanaam moo xam ne mu wër la lañ ci jublu maanaam moo xam ne genn yàqu gu ca nekk amut ñoom moom lañ ci jublu seen waxin woowu nag fitnaal na ñaari kuréel kuréel bu njëkk bi seen wax yooyu li muy nuru ci kaw moom lañ fas defe ne loolu lañ ci jublu loola tax nag ñu ne ñooñu ñu niti biddaa lañ wala ñu ñu réer lañ ndax ñun ci zaaxir bi rek la ñuy àtte te gaa yi ci zaaxir euh, am na itam kuréel boo xam ne dañoo xool ñoom lañ jublu ci yooyee wax ñu ne yooyu kat seen wax jooju wax ju jubla ju jubla ndax ñoom lañ jublu ci wax yooyee lañ lañ jël waaye jëluñu zaahiri baat bi kon ñaari kuréel am na kuréel boo xam ne zaahir bu lay jël rek di leen takfiir mbaa ñu leen di wax naa ñooñu ay yéefar lañ wala nit bu daa lañ wala lii nangam nangam ak kuréel boo xam ne ñoom jëluñu zaahiri wax yooyu waaye lañ ci jublu lañ jël daal ne lii kat wax du jubla yow yaa ko déggut waaye moom lu jublu lu jubla ci jublu moo tax ibnu qayim ne faalam ann fi lisaani alqawmi min alistiaarati wa itlaaq alaami wa iradati alxaasi wa itlaaq allafzi wa iradati isharatihi duna xaqiqati maanaa maa laysa fi lisaani ahadin min altawaifi gayruhum min altawaifi gayrihim ولهذا يقولون نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة والإشارة لنا والعبارة لغيرنا وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لا فساد فيه وصار هذا سببا لفتنة الطائفتين طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم فبدعوهم فبدعوهم وضللوهم وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوبوا تلك العبارات وصححوا تلك الإشارات kon gaa ñi seen sëriñ teg na leen ci yoon waaye dañoo jàdd seen sëriñ noonu na leen fa iyaak summa iyaak wal alfaaz al mujmalata al mushtabihata allati waqaa silaahu al qawmi alayha fa iyaaka summa iyaaka wal alfaaz al mujmalata al mushtabihata allati waqaca istilaahu al qawmi alayha fa innaha aslu al balaa'i wa hiya mawridu as-siddiiqi waz-zindiiq fa idaa samica ad-daciifu al-macrifati wal-cilmi billahi tacaala lafza ittisaalin wa infisaalin wa musaamaratin wa mukaalamatin wa annahu laa wujuuda bil-haqiiqati illaa wujuudu llah wa anna wujud alkainati xayaalun wa wahmun wa huwa bi manzilati wujudi zilli alqaimi bi gayrihi fasma minhu ma yamlau alaadana min xululin wa ittixaalin wa shafaxaatin والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسها فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم wattaxadu kalimatihim almutashabihata tirsan lahu wa junnatan nee na moytul moytul moytul baat yi nga xam ne muñ man la yu wax noonu rek te taayinun dara yoo xam ne yu lënt la yoo xam ne mutasawwifoon yi dañ cee def seen istilaax nag wax dëgg yàlla ku ko xamul ba noppi ci sabax loolu la daal yaa ko rek bopp nee na loolu mooy cosaanul balaa ku dëggu mën na faa tàbbi am naa koo xam ne yow sa sa xam sa xam daa daa daa faible sa xam-xam bëriwul xamoo yàlla bu baax boo déggee baatu ittifaal rek ak intifaal ak musaamara ak mukaalama ak jokkoo teqalikoog nangam wax xeet yi istilaaxaat yooyu nga xam ne mutasawwifa yi dañ koy faral di jëfandikoo wala ñu ne kat adduna bi yàlla dong nga fi ne maanaam maa fi wujud illa allah maa fi xaqiqati illa wujud la yàlla dong moo am leneen te loolu li wax wahdatul wujud mooy wahdatul wujud laa wujuda fi xaqiqati illa wujudullah dëgg-dëgg yàlla dong mu am yu Qayyim nee na bu fekkee koo xam ne amul xam-xam xamul yàlla ba xamul daa dégg lii wala mu dégg konaa ah mbindeef yi daal ci dëgg-dëgg seenu am moom xayaal rek la doo doo lu am ci dëgg-dëgg mi ngi mel ni rek ker boo xam ne moom daa topp mbir waaye ker mi ngi mel ni boo demoon ci garab daal ker gi moom daa topp garab gi rek waaye ci dëgg-dëgg moom euh, du lu am dëgg-dëgg wala lu ñu imaginer rek la kooka nag man nga dem ciy dégg dégg ci ak xulul wala ittihaad wala ay sotaxaat waaye daal nee ñi nga xam ne ñooy aarifoon yi ci kilifa yooyu ñoom baat yi moom dañ koy wax dañ koo boyal wax baat yi baat yi dañ koy wax ak ak ak yu mel ni baat yi waaye lañ ci jublu nag wér la kon Ibnu Qayyim ci wax na fi nag ñi nga xam ne ñooy wax ne yàlla doo nga am wala mbindeef dafa mel ni ker rek gu topp dara wala xeeti wax yu mel noonu nee na aarifoon yi nee ki nga xam ne nag moom xamul yàlla bu baax kooka mën na caa amul jaaxle waaye ñi nga xam ne xam nañ yàlla ñoom wax nañ baat yi wax baat yu mel yu ko nuru waaye maanaa yu jub lañ ci jublu loolu ñu wax nag ñi juum ñoo juum ci dégg lañ bëgg a lañ bëgg a wax askan leen ci seen kéefar googee kon Ibnu Qayyim fi saxal na fi lu rëy mooy nit mën naa wax ne kat yàlla doo nga am te maanaam mu jub la ci jublu nit mën naa ñëw juum ci dañ ci lam bëgg na wax féetali ko feneen kon moom texte bi dañ ci dégg ni Ibnu yi nga xam ne ci la wahabi yi sukkandiku di wax ne diw yéefar la ndax daa war lu wax lu juut nee nit mën na ko wax ba te dem ci lu nekk lu jub kon maa fi rujuudi illallah ak ñu ni mel nit mën na ko wax te jublu ca maanaa yu wér waaye nit mën naa ñëw juum ca dañ ko jublu féetali ko fa neen kon may yàlla yooyu yëpp Ibnul Qayyim moom ñi muy waxe ku ko waxoon itam mën na laa génneel benn maxaraj kon euh, yàllaa ku jaamam benn lañ sax wala amuñu différence loolu Ibnu Taymiya ci boppam sax nee na nit mën na ko wax te jublu ca maanaam wér boo demee ci Majmuu Fataawaa nee na euh, ki nga xam ne dafa wax ne arrab wala abdu shay'un waaxidun nee na ida araada bi dalika ibadallahi almuminina wa awliyaahu almuttaqina fa haulaa yuxibuhum wa yuxibuunahu wa yuwaafiquunahu wa yuwaafiquunahu fi ma yuxibuhu wa yardaahu wa yamuru bihi faqad radiyallahu anhum wa radu anhu wa lamma radu ma yarda wa saxitu ma yasxatu kaana alxaqu yarda li ridaahum ila axiri ila axiri kalaami ki nga xam ne nee na yàlla akub jaamam benn lañu amuñu différence loolu moom mu ak kéefar la bu fekkee zaahir ba la jublu waaye nag Ibnu Taymiyya neen bu fekkee da caa jublu ne da caa jublu jaam yàlla yu baax yi ak waliyoom yu ragal yi waliyoom yi nga xam ne ñoo ko ragal ñii yàlla bëgg na leen ñu bëgg ko ñu dëppoog suñu borom subhanahu wa taala ci lim bëgg ak lim gërëm ak ci li digle yàlla gërëm leen ñu gërëm ko ba nga xamee ne àgg nañ ci di gërëm la yàlla gërëm di bañ la ñuy bañ yàlla itam day mujj di gërëm yàlla yitam day gërëm ngir seenu gërëm di mer ngir seenu ngir mer kon ñeeg yàlla benn lañ bu ko nit waxee te jublu ci yu mel nii loolu maanaam wér la te pourtant yàlla ko jaamam benn lañ la waaj wax noonu la ko Ibnu Taymiya indee itam fa qawlul qaayil inna rabba wal abda shay'un waahidun laysa baynahuma farqun yàlla ko jaamam benn lañ amuñu différence kon seen sëriñ nangu na fii ne nit mën naa wax ne yàlla ko jaam benn lañ ba noppi jublu ci maanaam wér kon al ibratu bil maqasidi laa bil alfaaz bi sëriñ Ibnu Taymiya wax na lu gën a garaaw loolu nee na la nga xam ne borom xam yi ak ñi gëm yàlla ci ñu njëkk ñi mujj ñi nag la wax yéen wu ci kenn ñu njëkk ñi ci boppam ak ñu mujj li ñu nekk tam nuru ittihaad ak xolul te fekk dëgg la doonte tudde nañ ko xolul mbaa ittihaad teewu koo nekk dëgg nee na mooy la xam ne ca la waa lislaam ak waa sunna ahlu sunna wal jamaa nekk ak ñi nga xam ne ñoo xam yàlla ak ñi nga xam ne ñoo am yaqiin ci mboolem kuréel yi te loolu nag nee na alquran ko tegtale ak sunna nee na bima alayhi ahlul ilmi wal imani min al awalina wal axirin mimma yushbihu al ittihaad wal xulul wal xulul baat wa huwa xaqun wa in summiya xululan aw ittihaadan wa huma alayhi ahlul islami wa ahlus sunnati wal jamaati wa ahlul maarifati wal yaqini min jamii tawaif bi dalalati al kitabi wa sunna ginnaaw bi boo boo boo boo boo demee tuuti ci côté xaaj ci xaajub bi euh, xaaj naa ñaari bi page trois cent soixante treize suñu ma ko taawal mu wax ne ab jullit mënta ñàkk am lu ne ci xolam ci xam suñu borom subhanahu wa taala ak bëgg ko faaw daal ci xam yàlla ak bëgg ko faaw mu am ci luy waral faaw mu am ci luy waral yàlla moomu mu mu bëgg mu am jeexit yu mu te jeexit yooyu da lu mel ni xulul ci yenn anam yi doonte nag du xulul dëgg dëgg dëgg waaye loolu lay nuru euh, mu dem di continuer boo demee ba ci kanam mu ne waqad yutawassau fi libarati an hada almaana xata yuqaala maa fi qalbi illa allah nee na léegi sañu dem ba yaatal ni ñu koy waxee ba mujj naa sama xol bi yàlla doo nga ci yàlla doo nga nekk ci nag loolu nag dana dëgër léeg mu yokk di dëgër di dëgër ba mujj ñu di ko wax tëjal lii loolu ibaara la boo xam ne mutasawwifa ne dañ ko faral wala kashf wala kashfu wala yu mel noonu te nee na loolu borom xel xel yëpp a ci dëppoo bii day mel ni moom bu ngeen teel woon li muy wax dëgg dëgg dëgg dana bari loo xam ne bala ngeen ko wedde da ngeen ko wëlbati téeméeri yoon ndax yi ngeen di weddi moom bari na moom bari na ci yoo xam ne andu ci ak yéen leneen lay wax bal sax da koy saxal di wax ne nit mën na ko wax jublu ca lu wér sëriñ bu mel nii ne buy wax wax yu mel nii ku ko am booy raddu yu mel noonu dangaa war a raddu ay waxam waaye waru ko yemale rek ci yenn sëriñ yoo xam ne moom ñoom buñ ko waxee nga daan léegi kooku li muy daganal dëgganut wala daa juum wala wala wala tey mi dem na bay wax ittihaad gu mën a nekk bari ko misaali ci li nga xam ne nee nañ nee na bu fekkee wér ni ñu koy nekk lil isa man wa min hada al baabi qawlu al masiixi in sabata hada allahu anhu ana wa abi waaxidun man raani faqad raa abi nee na ci xeer woowu la li ñuy waxal isa bu fekkee wér na ci lañ koy dégg mooy maag sama baay benn lañ ku ma gis rek gis nga sama baay xam naa baay bi moom yàlla la ci jublu li mu tey nee na noonu ci xeetu ci xeetu xeet yooyu ci la ñuy dégg waxe mu waxe isa yi wala lu ne mel nee na mi ngi mel ni rek li yàlla doon wax naan inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah mu mel ni alquran di wax rek ne inna allah ñi jaayante yow yàlla dong lañu jaayante nee na xeeti waxin yooyu kon wax ji ñu waxal isa nga xam ne doonte isa euh, wax ji indaaliwul lu koy leeral waaye mu tey mooy ne noonu lañ koy déggee te pourtant li wax moom mooy yàlla benn lañ ku gis-gis nga yàlla koy layal di ko layalal kan sayidna isa alayhi salaam ab yonent di wax ne man na koo dégg di indi mus ko mën a dégg ci koo xam ne lañ koy waxal dañoo wax ne daa wax ne maa yàlla benn lañ ko ma gis gis nga yàlla pourtant bu fekkonte ne day kenn ci mu taxaw yu waxoon tey àdduna tukki kon daal damaa defoon duruus yi dañ ko war a jël xam ne tey mee moom euh, bokk na ci ñi nga xam ne dañoo war a dem ci seen makaati yi génne ay téeréem raddu di ko def ay par jour boo xëyee rek génne leen raddu ko ndax kat wax yi muy wax garaaw na kat chut te te affaire bu shirk la kufru xam nga kii di nga maam li mu wax xam nga ginnaaw mañ ma wax fatawa moom daanaka téere yi ci difa bi foo dem fekk ko fa ñi ñi di ko jàng damay bañ mu réeral yi de da ngeen ko génne da ko ndax yi yi dafa garaaw